jotaay bi daa xam. maa jógee jiw bi te jubaay jiw te bi day nee na da jege-jeg de yaa ngi fi dajeeg sëñ siiri jennum sëñ naat jennum sëñ baale jennum ñëpp xam na taxawaay bi ci yoon wi na maama meloon Cheikh Issa ci diggam ak Serigne Touba ba ñëpp xam ko ba fu sëriñ bi romb ñu naa ko bul fàtte Issa waa këram day mel ni lu ko loolu ñëpp ci moom nañ ko lu mas jàpp ni sëriñ bi bëgg na ko danaan àddi ki laaj waa kër gi loolu jàpp ni sëriñ bi bëgg na ko rek bala koo sëñ bee laaj Seex Issa génneen ni ko maamam sëñ baaram nee na ginnaaw ba ko maam Seex Issa meññee sëñ Tuubaa ko jaraat de tërbiyee ko ba gërëmaat ko muy muy cër boo xam ne doy na sëñ nee na waajuram sëñ naar jenn daa tërbiyee wu ba làq ngërëmul Cheikh Mouhamadou Fadal nee na làq na ngërëmul sëñ Abdoulaye de nee na sëñ Abdou Xaadir de li mu fi ñàkk ñàkk yàgg nee na santaane na ay ay liggéeyam de nee na besam bi ko sëñ Abdou Khadir sant moo ci jotaat nee na faran ko mujj siyaare yi sëriñ Saliou Mbacke da daan wax ni sëñ Naar ak sëñ Basirou Sarr ak sëñ Abdou Khalifa xanaa ku ma amee bor boo leen seenee ñuy ñëw. sama xel war naa dal ndax di nga fayu moom mii si njiit yi taxawaay boobu rek na ci si njiit yi nee na la ngay firnde salle de conférence bi ñu ne ubbi mbëkk démb moom mii moo ko liggéey lam ci ñàkk nee na jigéen te demul fenn fii rek Tuubaa boole ko addiya yi muy joxe te yàqu ko li muy joxe ci addiya dara nee na sëñ Bass nee na ñu ngi lay ñaanal nee na yàlla la Serigne Touba dëgëral nee na ci jàmbaari yoon yow nga nga bokk nee na sëñ Abdoul Ahad Diop mii sëñ wax Abdoul Ahad kay na sëñ Cheikh Massamba de nee na moo dox diggam ak sëriñ la sëñ Abdoul Ahad def muy wasilaam nee na kenn amatul waa kër Sëriñ Tuubaa daan naan wax ni nee na bu ma saa dégg ñu diw sama taalibe nee na dañuy tiit nee na ab rek ko am nee na sëñ Sidi bi nag nee na mi ngi jégalu doomi Sëriñ Mouhamadou Mourtala nee na rakk ma de sëñ Basiru nee na xarit dama lool nee na kon sëñ Saaliw sëñ Bas ci barkeb Serigne Touba nee na yàlla la suñu borom dëgëral tartanaan la ba si sa waajur wa tàmbaliwal te nga daja Serigne Cheikhoum Serigne Saliou démb rek seere na ko foo nekkul nee na loolu sëkk nee na sa na sa sëñ na sam na sam xel dal nee na na nga góorgóorlu bu baax te yaatal sa dënn yaatal sa yitte boo ko defee rek. nee na xam na xam nañ yaa jaboote ñëpp nee na fa nga jëm di fa yëg amit nee na sëñ Muntaxa mii fi ne nee na gërëm na la de te na la ko léegi sëñ Cheikh mii di sa bunt ci sëriñ bi nee na démb seere na ko te fekke woo ko nee loolu doy na sax yàlla nga fi yàgg ba lii kenn la ko mën a fay